bokki Sénégal mbokki amateurs yi mbokki région de Fatick spécial ndéwénal la leen fans club bu Kër Ndour andil le surlendemain de la tabaski muy grand gala de lutte sans di spécial sargal monsieur ministre Matar Ba ministre des sports maire de la commune de Fatick fans club bu Kër Ndour lan ngeen nar ñu ne làmb ju rëy kan ngeen ko dippe ñu ne ki sportu Sénégal yépp di tiitaroo ki commune bu Fatick bi di tiitaro ax lu làmb di ko sagoo muy le ministre Matar Ba moom la ñu fas yéenee sargal daal di cay teg 3 millions de francs CFA muy bés bu rëy ñu jàpp ko ci jaxaaw siin daal di cay toftal nag animation bu amul fenn ndax amateurs yi xam na nañu ne saa yu mbéyeg lum fegoo ak moomoo ngom lamb jooju faaw mu wàcc faaw mu alaa daw me faaw mu yëngu ba yëngu fu dara nekkul ñu am ci ay invité d'honneur ku ci mel ni Abdoulaye nduur ministre conseiller à la présidence ku ci mel ni Badara Ndiaye maire de la commune de njal gi ku ci mel ni Ismaïla Sène responsable politique ci Njabel Thierno Silla maire de la commune de Jaxaw Sine ñu fas yéene cee décorer nag seen seen xarit seen grand frère bi taaw kër gi te dara ñaawul muy monsieur Babacar Ndour mujj bëgg mbokk ñu ne bés baa ngoog mbokki amateur yi fan sa club Boucar Ndour moo leen di woo di woo waa lamb di woo mbër yi ci spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba muy le surlendemain de la tabaski fii ci jaxaw sin mise ba di 3 de francs fa ci waxtaan bi ko defee ni ko ko organiser ñëpp danañ jot incha allahu rabbi may le ma tuuti monsieur le ministre dañuy wax ne tubaab dellu na Paris dellu si nga ci penc mi nga xamante ni li Sénégal xamul mooy siin ku ne xam na dut ba mi nga xamante ni bàyyi la ci monsieur le ministre bi nga xamante ni tey sport bi ñu ko jox. bu toogoon balaa mu tëgg day woo gaa ñi ne leen jóg leen ma dem jël drapeau ba le dem jël drapeau ba ñibbi waat maaraan kooku mooy ki nga xamante ni mooy kilifa monsieur le ministre nga xool ko ci sport mu dellu siwaat monsieur le ministre bi mu fii di jàng ci Bouréngom école bi nga xamante ni moo nekkoon école primaire bi moo nekkoon le gardien bi nga xamante ni école bi buñ ko amul duñ sawar monsieur le ministre dellu siwaat biñ demee ba nga xamante ni équipe bu mag bi muy le Kangeer tey Pape Dialgui Diouf jóge na ci camp yi le ministre Matar Ba taxaw nekk la gardien bi nga xamante ni depuis 1985 ba 1989 yaakaar bi nga xamante ne moo nekkoon suñu yaakaar de gardien de but fii mooy monsieur le ministre des sports Matar Ba gagné fii li nga xamante ni mooy coupe journal yi gagné départemental gagné régional jóge fi nag ndeysaan jàll ci li nga xamante ni mooy tey li ko yàlla jox lii liggéey ci liggéey bu rafet bañ jox ko li nga xamante ni mooy ODCAV mu liggéey fa liggéey bu rafet ci liggéeyu ndeyam bu jekk Baye Sadou Diouf ñu jox ko ministre des sports mu def ci loo xamante ni ci Senghor ci Abdou Diouf ci Abdoulaye Wade ba ci président Macky Sall jëri ko ne wax ba ci soom yow yaa fi def li ko def gi ñu jox ko un jeune promoteur mi nga xamante ni moom moo jiite li TV les fans club Lutte TV mi nga xamante ne nekkul les fans de Jaxaaw mais parmi le département Fatick régional ou national ñoom ñëpp ñu ngi ci ginnaaw le jeune Boucar Ndour ñu nekk si ginnaawam di def lu am solo ñu wax ne Sine Jaxaaw mooy la capitale kon dañuy bàyyi dëkk yëpp ñu dellu kër maam. di fa dëgg làmb yi ministre des sports ñu meññe ko jaxaaw dañu jël lépp jébbal ko kon bu kër Ndour kaddu gaa ngi noonu ministre a ngi noonu waaye jaxaa ngi noonu Bakar maa Ndour ñaan ba jolo ko yàqalam gaan yow sama ndaa lu taxaw fii ci penc mi ndax ku ne xam na ne yow buur nga fii ci penc mi kaddu gaa ngi noonu waaw bisam jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Bure maa ngi lay maa ngi lay remercier jërëjëf maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu nag président fan bu club Bukalu TV muy Aly Ngom Sène depuis Turquie mooy président bi moo créé groupe bi waaye yàlla def na dafa voyagé mu nga ba Turquie maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu nag sama frère yi nekk fii nii ku si mel ni Semou Diouf ñoom Iba Sarr grand Babacar fan bi yëpp parce que dafa yaatu nga nekk si mbir di si liggéey nekk xale bu ndaw mën nañ ne tey moins de 30 ans waaye liggéey bi ngay liggéey ay nit gis la si naw la si créer la fan si club di jël seen alal seen ñaq seen i conseil di la ko jox ñu amoo seen fay amoo lu dul yëg-yëg pour rendre leen l'appareil kon maa ngi leen di sant di leen gërëm staff bi yëpp peut-être euh, tey sëmu moo waroon yëkkati euh, kàddu gi jël wax waaye comme protocole la dañ koy respecté waaye nag fi may daan lee rek mooy le ministre Ba man message sax salut per laay wax wala salut tons parce que c'est un parent boo xamante nii tey yaakaar naa ne dañu am lu ñu liyee mu nekk tey euh, mbokk bokk siin bokk jaxaaw gii nii man nag tey lu may def jaxaaw laa siy jiital lu ma mënti def ñu ngi may taxi nag de politique ak lu mënti xew waaye tey ni ma koy waxee rek tey la famille d'abord loolu la ñu wax kon kay kii suma suma papa la suma xarit la suma lépp la waaye ni ma koy waxee rek c'est le ministre le plus sollicité moom Matar Ba c'est le ministre le plus sollicité waaye nee naa leen c'est le ministre le plus accessible ay ministre rek fi ñoo xamante nii tey pour nga gis leen c'est tout un problème waaye Matar Ba boo ko messager sax ipso facto nga gis mu répondre la te loolu yaakaar naa ne oyof ak mbaax rek moo ko waral mbaxa mbaxana nag mbaxana nee nañ oyof la tolo tolu tolu waaye ñaari loxo moo koy yéegal kon nit ki boo wàccee sa bopp rek yàlla yéegal la kon monsieur le ministre ñu ngi lay sant di la gërëm di la réitérer nag suñu engagement ak suñu soutien sa ginnaaw en dehors de la politique ak ak leneen ak bi ma nekk nii tey suñu papa boo ñu soxla ak lépp lu mu mënta doon dañuy dagg suñu yiite ñëw wuy si la parce que yaa ñu ko ji waaye ni ma la ko waxee woon sa bureau rek li gën a tax tey man naw la muy tey insertion bi ma gis ngay liggéey nee naa leen la politique sur le social waaye la politique d'aujourd'hui doit être l'insertion tey dëkk tey pour mu développer foog jeunes yi liggéey tey jaxaaw gi tey pour mu développer nga gis fi ay étages gis fi leneen ak leneen foog jeunes jaxaaw yi du liggéey gis nañ nag muy liggéey fii la ñu tey bu ñu demoon ba États-Unis ak fépp fu ñu mënti dem tey dañu naan ne fu mu dëkk mun a jaxaaw kon bëgg nañ tey képp ku fi jaar parce que fii Carrefour la xam ne fii kat am na lu ñu fi liggéey ay nit ñu am jom ñu am fu la ñoo fi dëkk si loolu daal lañ koy woo mu gën ñu see jàppale gën ñu see dooleel rawatina nag tey li nga xamante ni tey si lay yëngu muy sport bëgg nañ tamit sport jaxaaw gën a développé parce que tey néew na tey nga gis jeune buñ ne pro la ñu ne tey jaxaaw la dëkk te moom jaar si football am lu mu deful si football fii si diwaanu jaxaaw siin kon bëgg nañ tey ñu développé euh, le sport niveau de jaxaaw man nag bi ma fiy tëgg làmb waxoon naa leen ko nee naa leen ne lii ñun ku ñu ñaanal sax ñu jël yàlla na réussir sax ku ñu ko wax ñu jël parce que développement jaxaaw lañ bëgg tey peut tey fans club bi ñu ngi organiser ay làmb tey waaye tey ñi siy bénéficier en dehors de fans club bi bëri na muy borom saret yi ñiy jaay ndox ak leneen ak leneen ak leneen kon làmb dafa nekk tey loo xamante ni tey dëkk bi yëpp koy dund Sénégal yëpp a koy dund Matar Ba nag ñun amuñu euh, luñ koy remercier maanaam euh, remerciement yi am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem xanaa di ko ñaanal yàlla gën ko euh, guddal fanam gën ko dooleel président Macky Sall tamit gën ko dooleel parce que tamit tey longévité bu mu am tey si ministère de tutelle am tey dara waral lu ko lu dul liggéey qu'on se la vérité dafa liggéeyal sport moo fi andi tey lu fi mës a am muy coupe d'Afrique andi fi leneen ak leneen ak leneen kon ñu ngi lay ñaan yéen boobu noonu yàlla na oyof coupe du monde lañ lay ñaanal coupe du monde lañ lay ñaanal ak yeneen ak yeneen ak yeneen tey fi nga fi nga li yéene si sa xol ñu ngi ñaan yàlla mu matale ko parce que lii tey yombul waaye ñu ngi lay ñaanal di la remercier waat di feddaliwaat nag suñu suñu disponibilité si yow ak suñu engagement lamb ji nag dañ si am kuñ si décorer mu nekk suñu frère nekk suñu taaw famille muy Babacar Ndour bu ñu koy décorer si lamb jooju nag nekkul dara lu dul tey ngir delloo ko l'appareil moom tamit kii su la nee tey sama fourniture terminale moo ko jënd mu ngi nii moom Babacar te bu ko neexoon day ne ay doom baay lekk rañ kon kon man kii tamit aw ma fayam tey suñu famille tey plus de dix personnes yoo xamante ni tey jaayante na ba ñu am xëy rawatina nag tey li wër jaxaw si ñi ñi toog fii mën nañ ko seede plus de cent puits centaine tey def na ko si localité li wër jaxaaw siin à travers ONG te bu ko neexoon di ko si fekk bu ko neexoon am alalam dem dëkk feneen ñuy dem këram di fa fekk ay gardien ñu ñuy dàq kon Babacar Ndour loolu tax ñu koy décorer moom tamit si bés boobu noonu waaye Matar Ba bu ñu koy sargal dañ ne dañ koy def biir jaxaaw parce que jaxaaw la dëkk jaxaaw la am euh, sargal nañ ko fu ne si àdduna bi waaye nag jaxaaw moo desoon tëgal ko fi làmb ju mag mu ne ma yokkal la jàppale loolu la ma waxoon buróom moo tax tey ñu jël tous les risques jël tous les devants jël jaayante lépp ngir rek euh, mën bés bi suba incha allahu rabi bu fi ñëwee wala mu yónnee délégation bu ñëwee am satisfaction kon ñu ngi lay ñaanal père gudd fan di la ñaanal wér-gu-yaram yàlla gën a dëgëral taxawaay bi sport bi de xam naa ne bu amee ñuy jooy itam bëriwul parce que ku jooy sax nga woo ko naxtaan ko te yaakaar naa ne loolu la ñuy xaar si yow ñu ngi lay remercier di la jaajëfal jërë ngeen jëf merci Boucar jërëjëf ñu def remise symbolique drapeau bi nga xamante ni moom lañ dippee la ministre des sports Matar Ba talalal talalal talalal drapeau bi ñëpp gis lii nag dafa nekk loo xamante ne du guléet ndax jëm juñ koy defal ah boobu doom day dëkk bu nekk bëgg naa yàkkamte am doom ju mel nii waaye macha allah yàlla na ko cattee gi kuy defar biti du yàq biir monsieur le ministre Sénégal a ngi lay ndamoo monsieur le réew maa ngi lay ndamoo monsieur le ministre sport ba lay ndamoo nee nañu bi nga xamante ni toog na ci bopp ministère ba léegi benn jour jooyatul prime benn fédération jooyatul mboolem sport yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal kenn ku ci nekk monsieur le ministre am naa yow rapport boo xamante ni bu rafet la waaye gàcce ngalaama damaa wax ne doom ju baax yaay ju baax a koy jur kii bu melul nii day tooy ndax li neem liggéey ci kaw suuf ëpp na lii waaye macha allah yàlla ko yàlla fal cat ndax li ci kanam moo ëpp li nga xamante ni moom lañ jox moom lañ gis nii yàlla na ko yàlla mottali yàlla na ko yàlla dooleel dañu jox ndey fay nag moom it mu nuyu ma taar ba ndax yow fii nga taxaw sama ma daan taxaw fii ne jaxaw cel kon yaakaar naa ne boo taxawee fii tey jàkkaarloog ministre des sports ko wax li nga xamante ne di boo seen loolu doon wax ci penc mi acca micro baa ngi noonu. Ousmane Mbaye taw bi mot na taw ba Jéeri Kolima Paate taw bi mot na taw ba Sire Sambala mo yow taw bi mot na taw ba Yaago Macky Sall wolwang ba Matar Khadilay woy ba Matar Khadilay woy ba Matar ba yeey Macky Sall wolwang yow jeri kolima bate maki jala wol wangba jogu sirema bate maki jala wol wangba matar basire zambala moba yago bukar nurum laita ndur bukar nure abdu moiza bayo ndur bukar nure abdu moiza bayo ndur yago ndebongana babu ndur yago nure ndebongana babu ndur buka nduuro nde ɓo ngaana baabu nduur sakariya ko kasama doom la yew sakariya keɓe ko kasama doom la yew borom yaju babango borom yaju babango yago ture naar wali sagla naare sagla ture naar wali yago pinta jagde sa doom la Binta Dia koko sama doom la way yaago Babou Ndurum lay tandur Babou Ndure ma jàkkaarloog Ba damay xam lu ma wax jeri ko ma paate wax mi ci som sama waaji sama waaji gàcce ngi ci ndama ngi ci ba jeri ko li kontaan naa trop tey ci bés ma taxaw fii tey jàkkaarloog yow waaw te ñu wala gay na ko yey matar ba ta ñu wala gay na ko yey matar ba e bulen ko tapando ho e ñay to ma segele he matar ba ye jeri ko lima bate matar ba deglu liel ma woya sama gere matar ba Matar Ba sa yaaya liggéey li yey Matar Ba jeri koli ma paate wak mi reere siin njogu ma paate sire sambalaamo raki biran ba jeri koli paate yey ya ayu moy sa yaay Matar Ba déglu leen ma waya sama geerey Matar Ba ko mënul dara doo def soo defe yi du baaxey Matar Ba Matar Ba ye ma kisala xool waa ngay Matar Ba le ministre de l'esport yey wër nga juróom ñaari réew be indi coupe bi Sénégal karyande bu mbisin fonjorong lam gan samba juut samba jogondew giran yasin siise fonjanam le jookul ana Bukar Nuur yey Bukar Nuur kooku sama giir la liggéeyi ndey moo di añub doomey Baabu Nduur Baabu Nduure Baabu Ablaay Nduurey Baabu Nduur Baabu Jeen Nduur Baabu Ablaay Nduurey Baabu Nduur maga xam sa maame nu njëgu jaxama ye njogoy refe rokel moole matar ba mbokku jaxaw maa ngi leen di nuyu waaye bala may continuer wax ji damay jéggulu le maire de jaxaw sama jarbaat parce bi ñuy ñëw woowuma ko yëgaluma ko te loolu defe naa ne du njuumte sax dangay dem foo dëkk rek eh, am fa teraanga buñ lay defal ma di ko bañ a déranger parce que xam naa ne tous les maires dañu am jafe-jafe parce que tabaski bi dafa sonal ñu bare bare donc euh, madame le maire ñu ngi lay ñaan nga wax suñu jarbaat boobu suñu cofeel ci moom mais aussi suñu considération bu ñu am ci moom li nga xamante ne mënuñ ko ci bañ yokk moom mooy di nuyu l'honorable député bi Birame Touré li tax ñu koy nuyu mooy ndombo tànk la takkoon di xeex di wax di jàppale président Macky Sall ba yàlla def cëram jeex ñu investir ñeneen mu dëkk jaxaw mënuñ ko bañ nuyu waaye di nuyu jigéen ñi ñu fi fekk di nuyu ma grande sœur Sahla Touré ak ñi mu àndal yëpp madame la maire madame fay maa ngi lay nuyu aussi di la nuyu ci sa taxawaay parce que waxtu wu ñu fi ñëwee dagg nga say activité ñëw fekkee li ñu def dañ leen di ñaanal ndam ci leen waa Fatick waa Jaxaw jox mooy jiital leen ci bopp municipalité bi di gërëm suñu mag yi ñu fekk Birane Ba mais di gërëm monsieur Ndour Babacar di nuyu Boucar ak tous les fans de Lutte TV ci liggéey bu rëy bi ngeen di def ci àdduna bi mais plus particulièrement ci làmbu Sénégal di gërëm ñi ñu fekk yëpp nag ndaw ñi la jeunesse di nuyu artistes yi surtout monsieur Sène mi yore ndënd yi Bouré mais di sant ab Ablaye le micro centrale di sant Ndey Ndey fay di sant it ki nga xamante ne moom mooy Aïda mbay ci wéy yi am nañ ci mbégte parce que suñu cosaan la li am nag jaxaw tey li tax ma dagg lépp li may def tudde nañ ma làmb yu ne de très grand combat mais bu ñu ñëwee fii xele am xel bu rafet ne day delloo njukkal day ñëw fii nga xam ne fii laa gànnee àdduna ne daf fiy tëgg làmb amoon na honneur lépp lu may xat-xat danaa ko ci xajal pour woon ko nekk considération bi ma jox delloo na ko donc dañ lay sant bu baax di la gërëm ni ni ngay waxee ci man noonu lay waxee ci yow yow itam tiitaru siin nga parce que levier bi nga yor muy Lutte TV na ci nit ñi gis ne seen doom moo nekk ci secteur secteur bi mu nekk dañ ko ci war a jàppale moo tax ñu lay encouragé am nañ interview lu bare bari mais yaa ngi liggéey ak professionnalisme c'est pourquoi il faut continuer parce que nit day gëm boppam ndaw du toog rek jàpp ne lépp dañ ko ko war a defal da nga war di jóg di daanu di dugg ak a génn te yaa ngi ci yàlla ngi lay jàppale ci fi nga nekk kenn yabu la ci donc na la leer na ci loo dugg rek dinañ la ci jàppale parce que bu ñu ko defee suñu doom lañ ko defal suñu jerbaat lañu ko defal mais suñu mbokk siin lañ ko defal di gërëm Woynde Dieng nga xamante moo jiite li nga xam mooy làmb ji fii moom itamit euh, ñu xamante bu yàgg yarondoo presque lay wax jaxaw ku ma ci xool rek lu ci gën a bari mun naa jaar sa tur maa ngi tooj laaj Ndour léegi arbitre de football la mais dégg naa arbitre làmb la léegi donc moom moom beneen affaire la ba tax na làmb ji nga xam ne moom nga tëgg mu war a am suba c'est dommage que je ne pourrais pas retourner à pour ñëw fekke ko mais y aura une forte délégation bu ñëw représenter ma fii ci làmb ji le chef de cabinet sera là les femmes de Fatick ñëw fekk si Saxla parce que en réalité mënoon naa bàyyi Saxla rek mu gérer làmb ji ànd ak du duma wax sax sama mag ku ma bokkal ndey ak baay mais collaborateur yi mën nañ ñëw yore li nga xamante mooy bés bi dang ñu ne woon nag da ngay yokk mise bi ñu d'accord ceeg yow moo tax le chef de cabinet va te remettre une enveloppe de 3 millions tout à su ko defee mën nga ko remettre 3 euh, millions su ko defee mbiri làmb ji féete boor li ci des mooy déroulé yàlla def ci jàmm dañuy ñaan mu nekk réussite ñu def ko ay ati ati ati at li may jeexale nag mooy tey yaa ngi may sargal li tax nga may sargal daf nit a tax nga may sargal muy le président Macky Sall su newuloon moom peut-être du ma taxaw fii tey nga ne da ngay tëgg làmb pour sargal ma kon ku fonk Matar Ba ku fonk le maire de Diakhao ku bëgg le développement du terroir ku bëgg le développement du Sénégal da ngay voté Benno Bokk Yaakaar loolu mooy dëgg ginaar du topp kuy taxani te gis kuy bojj gars yi yéene lañu am ndogal yàlla daf ko def ci président ki am yéene ak ki yor ndogal du benn te mu bëgg siin di siin siin donc suñu tiitar la dañ ko war a jàppale kenn du leen jàngal vote bi xoox leen piis leen ñëpp xam nañu loolu mooy dëgg yëf yi amul lii amul na campagne bi démarré na li ñu bëgg mooy ku yor kart denc ko bu bés ba jotee nga voté ñu continuer defar fii nga xam mooy Sénégal xam nga ne benn yoon rek a des bu ñu war a defar à part yoon wi jaar jawle dem dem dem Kaolack yoonu jaxaw ñaaxar moo des loolu bu ñu ko defaree defe naa dina defar lu bare bari ci siin siin nag fulla lañ mës a am te mos a nekk ci dëgg politique du ay naxaate su doon naxaate siin siin gëm na ko buur siin commando fen du seedeel Serigne ba mu koy def gañewu ci dara mais dafa gis dëgg nangu ne lii mooy dëgg la kon dëgg bi mooy ànd ak Macky Sall si on veut que le Sine se développe képp kuy wut leneen nag nga def leneen waaye ku bëgg Sine développé Macky Sall nga yàndal kon maa ngi leen di wax tout la jeunesse tout les femmes ànd leen ak le comité électoral de Diakhao commune ngeen mobiliser nekk benn keneen wutatul les élections territoriales sont derrière nous on va vers des élections législatives on veut que le président ait une majorité confortable une très large majorité loolu li koy maye mooy bu leen xeeb vote bi xam nañ ne yéen ay mais tey su ngeen yokkee ñi voté dañuy jël loolu yóbbu ko au niveau national kon nu mu gën a baree gën a baax bu kenn tayal na ñëpp voté ji kon maa ngi leen di sant encore une fois di sant le maire de Diakhao ci taxawam ci wetu président Macky Sall parce que moom la àndal président dina ko jàppale doomam la jarbaatam la pour l'intérêt de Diakhao kon na nit ñi ànd nekk benn te xam ne ndombo tànk bu jeexee day jeex mais li am solo mooy nan la ñu def ba Fatick dox nan la ñu def ba jaxaw dox nan la ñu def ba Sénégal dox loolu nag moo ëpp doole li Matar di dugal ci poosam wala Zakaria di ko dugal ci poosam defar tali moo gën ñu may nit cinquante mille téeméeri junni yoon donc li ñuy def muy intérêt ñëpp na ko nit ñi gis jaxaw nag dëgg-dëgg nit ñi nag mun nañoo bëgg mu gën a dem waaye mu ngi dem nag am na temps bu kangeer joué ji woon xale yi fii la ñuy toog ci ron garab yi ne fii mbàpp la woon fokkaan nga defi na mu su ko defee guddi sax doo ñemee jaar fii day lëndëm touriste doo xam foo jaar tey ñu ngi fii ci place publique le maire sortant s'est battu def na li war a mën a def mais ki fi des day jële fii ki pare defaat leneen yàlla na def lu ëpp li ki fi nekkoon def su ko defee jaxaw gën di continuer di dem ci kanam kon maa leen di encore une fois di gërëm waa jaxaw awma seen pay mais di gërëm Lutte TV di gërëm Boucar ci xelam bu rafet ak yar ak teggin bu ne ci moom en tout cas tu es un jeune tu fais notre fierté dinañ la gën a jàppale dinañ la gën a taxaw kon maa ngi ñaan làmb ji jëm ci kanam ñu bëre ko ci jàmm bu mu am benn jafe-jafe mu nekk feet ci biir jaxaw su ko defee ñu continuer defiwaat yeneen activité maa ngi leen di sant leen gërëm wa mbokki Sénégal mbokki amateurs yi mbokki région de Fatick spécial ndéwénal la leen fans club bu Kër Ndour andil le surlendemain de la tabaski muy grand gala de lutte sans frappe di spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba ministre des sports maire de la commune de Fatick fans club bu Kër Ndour lan ngeen nar ñu ne làmb ju rëy kan ngeen ko dippe ñu ne ki sportu Sénégal yépp di tiitaroo ki commune bu Fatick bi di tiitaroo ax lu làmb di ko sago muy le ministre Matar Ba moom la ñu fas yéene sargal daal di cay teg 3 de francs CFA muy bés bu rëy ñu jàpp ko ci jaxaw siin daal di cay toftal nag animation bu amul fenn ndax amateurs yi xam na nañu ne saa yu mbéyeg luum fegoo ak moomoo ngom làmb jooju faw mu wàcc faw mu ala daw me faaw mu yëngu ba yëngu fu dara nekkul ñu am ci ay invité d'honneur ku ci mel ni Abdoulaye nduur ministre conseil à la présidence ku ci mel ni Badara Ndiaye maire de la commune de Thiaré Ndialgui ku ci mel ni Ismaïla Sène responsable politique ci Njabel Thierno Silla maire de la commune de Diakhao Sine ñu fas yéene cee décoré nag seen mag seen xarit seen grand bi taaw kër gi te dara ñaawul muy monsieur Babacar Ndour Ndour di jëmm ju bëgg mbokk ñu ne bés baa ngoog mbokki amateurs yi fan